salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi suivre seen site internet mourides point info ginnaaw bi portrait bi jàllee nag comme li leen ko yàgg di waxee rek ba léegi yéen ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag sama invité jàpp naa ne kenn du ko nattable muy Modou Ndiaye euh, di responsable APR fii ci Touba Mbacké balaa may xuusee ak moom ci waxtaan bi dama koy bàyyee mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi lay seetaan Modou Ndiaye. salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi yi seetaan Mourides info ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare. di rafetlu vraiment émission bi nga xam ne yéen a ngi koy amal ci koor gi di la wax effectivement du Ndiaye la dëkk fii ci daaru Minam 2 bokk ci ndaw yi nga xam ne ni dañuy yëngu ci parti bi di APR. Ah, merci beaucoup ci présentation bi am na solo torop Modou Ndiaye Ramadan Moubarak la ñu wax nag en tant que responsable nekk fii di Touba Mbacké naka ngay dundee koor gi en famille. comme d'habitude rek xam naa dañu koy ànd ak njaboot gi. muy suñu waajur yi d'abord ñu ngi leen di ñaanal sunu borom bàyyi leen fi ak sunu soxna yi ak ñoom seen dañuy bokk nekk ensemble daal boo xëyee comme niñ koy defee fajar gi xaj na loolu ñuy wax xëdd boo ko defee boo xëyee dem liggéey boo wàccee aussi ci kër gi ngay ñëw toog soxna yi defar ndogu yi tegal la nga toog ensemble ndogandoo ak xale yi ñëpp daal noonu lañ koy dundee. noonu nga koy dundee ma bëggoon naa xam ba xam tamit euh, bu waxtu julli jotee jumaa ji la gën a jege ngay jullee fii wala ngay toog jiite njaboot gi fii ak soxna yi. waaw comme xam nga dañuy xëy dem liggéey en général barab bi ñu nekk ñun fi la ñuy jullee waaw xam ne jumaa bu ñu dendal foofu su waxtu julli jotee foofu la ñuy dem julli mais kër gi moom euh, moom ñoom aussi bu waxtu julli jotee ñoom ñëpp dañuy julli parce que kilifa kër gaa ngi ci kër gi muy sama papa waxtu julli jotee ñëpp dañuy jug julli. merci beaucoup Modou loolu am na solo trop yooyu leeral ba léegi ñu leen di fàttali ni yéen a ngi ci seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou ni leen koy woyalee ak yéen comme ni ngeen ko bëggee duñ toog ak ki nga xamante ni si mooy suñu invité te duñ dugg ak moom ci li muy yëngatu Modou en tant que ndaw di jeune lan moo la dugal si politique. waaw loolu moom xam naa bi ma ci duggee ak léegi yàggul mën naa ko mel ci politique tamit xam nga boo nekkee ndaw am yéene ci gox bi nga dëkk général di bëgg yu bari nga di ko fa man loolu parfois mulai lay pousser ci ngay def politique ndax association yi nga xamne ñing koy taxawal ci koñ yi euh, di def ay set setal ak yu demee nonu mo ñuy pousser ba dañuy dem ba souvent leader politique yi dend ak yow ñolay convaincre ci nga def politique euh, loolu mo ñuy tax danaka en général. lu amna solo ndax man na xam ban leader nga andal fi fi ke leader bu ñuy wax Serigne Bassirou mbake tip ñu gën ko xam ci. Eh, maire bu daru salam tip di doomu seigne Moustapha Basirou mom aussi dekk ak ñun fi ci daru Minam de mais nak jekuma and ak mom ci politique parce que bi may def politique en 2012 bobo ma ngi doon ànd ak seigne Fallou mbake mom seigne mbake sanolo nek président conseil départemental wa tanga baye seigne Fallou mbake ñew ci seigne mbake jema dugg ci parti au pouvoir bi ndaxte dinañu permettre tay avantage yu bari ñu mën ko apporter suñu gox. loolu aussi ci lañ ci xalaatee waxtaan ci ak fekk association bi nga xam ne maa ngi ci nekkoon ànd ci ak gaay yu bari ci lañ ci waxtaan ba am ci ak déggoo ñu dem ànd ak moom loolu moom ma jële ci sëñ Fallou andi ma ci sëñ Bas mais duñ am ak moom noonu non non chaque màggalu Taïf damay dem këram laay dal saa bu ma ko bëggee woo aussi dama koy woo entourage am aussi ñëpp samay xarit lañ wax dëgg yàlla amuñu benn problème dara naqariwu ma aussi ci moom ba léegi sax fu ma dajeek moom dama koy tooñ ne ko même yow sax dinaa la indi affaire. waaw moo tax ñu benn problème. Mm-hmm. loolu am na solo trop ñu gis ni que ñu ngi jógee ci élection présidentielle yi defetu Macky sàll fii ci biir Touba naka nga ko jàngate defetu président Macky sàll moom niñ koy dundee ci dëkk bi vraiment xam naa ne du lu métti lu ko daal te it xam naa ne jaaxal nañu trop lan mooy waral lool noonu ndax gis nañu ne vraiment bu dee ci côté investi man toujours damay wax ne. Euh, defet bi mom dina may jaaxal trop ñu man ko décortiquer xam lan mo koy waral parce que boudé campagne aussi. est ce que nak du ci seen biir yeen yi nga xamanteni ci si responsable nek fi ndax campagne bi war pour ngeen mën dundal askan bi ba gëm leen loolu li Macky Sall def fi ci réew mi pour man fi am pouvoir est ce que yeen a ngi koy def. waye loolu aussi tamit euh, japp na ne batay lolu waralul defet bi lima ci xalat dal man moy ci côté euh, doomu adama yi nga xamni ñoy dund ci biir dëkk bi. li nga xam ni moom lañ doon tàmm ci yeneen président yi di ko gis euh, mel na ne des na ci président de la république Macky Sall su ma la bëggee expliquer loolu mooy que ne morit gi ñoom dañoo habitué wu di gis comme président Ablaye Wade ni mu doon dundee ak sëriñ si fi ne woon à chaque instant mi ngi Touba mu ngi ci jumaa ji chaque jour mi ngi tenir ay discours yoo xam ne nii waaw chaque jour mu ngi tenir ay discours yoo xam ne ñuy am ndax président Macky Sall ne xam na ne murit la. loolu am na waaye ci biir ni murit yi tàmm gisee comme ni ko Abdoulaye Wade daan defee loolu moom ni mu ngi koy def agit ba ci ni nga xam noonu lay jàppale yeneen dëkk yi dafa dafa dafa joué waale bu baax parce que Touba boo gisee ndaw yi gis nga leen majeure partie comme man rek daanaka defuñu dara dañoo bëgg président ànd ak moom nii rek mais amul leen loo xamante ne nii fi ne luñ jàpp loo xam ne mën nañ ne lii président moo leen ko defal ci sept yi nga xam ne moom lañ dund man nag yàgguma ci parti mais aussi bi ma ci ñëwee ba léegi loolu laa ci fekk. ci loolu laay xuusee ma gis ni que gouvernement bu bees bii mu xamante ne si moom la taxawal est-ce que du lim perdre fii Touba nga xamante ne si mosu fi am ndam loolu moo tax euh, mu ne nomewu fi kenn. ci benn côté mën nga wax aussi tamit ne xaj na comme moom ni mu koy waxee fast track dafa am gis-gis bu bees bu mu gis ne xaj na noonu la war a doxee moo tax ba léegi egseegul fii mën nañoo jàpp ci côté boobu mais daal lu ci mën di am rek mooy que ne. fii am na ñu am compétence wu mën a liggéey. Macky Sall wala boo amoon tey yenn kàddu yoo koy sànni lan nga koy wax. président bu ma ko doon digal li ma koy digal fii surtout fii ci suñu département bi ñu nekk muy que ne dafa am lu bari lu fii lu mu fi retard mun naa ko commencé ci PUDC bi presque mën naa ne Mbàkke duggagu fi booy xool beneen bi ci des aussi côté jeunes yi am nañu jafe-jafe yenn formation yi. am nañu jafe-jafe emploi jigéen ñi aussi am nañ jafe-jafe ci yenn financement yi kon su ma ko doon conseil yi ma la wax nii jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi nga xam ne nii surtout ñoo fi dund waaw. Ah, loolu de am na solo macha allah kàddu yi leer na torop ah, yow sa ambition ci politique lan la. sama ambition ci politique euh, du damay amay ay yoo xam ne dama koy viser wala dara xam naa côté boobu dinaa ci wuteek ñu bari man daal li ma yéene ci politique mooy que ne gox bi ma dëkkee. gis ne am na ndaw bu fi nekk di yëngu ci politique am na lu bari lu ñu bëggoon xaj na mëna luñ ko woon seen bopp fexe fexe na bañ jot ci loolu daal maa ngi koy maa ngi rêvé man ay jour yuy ñëw ci kanam ma def loo xam ne ñi sama gox ñu baree bari dinañ xam ne Mamadou mi nga xam ne moo doon yëngu ci politique moo fi def lii. ñu gis ni que dañu jot benn information démb muy Aminata Tall mi mu dàq ba pare jël poste bi jox ko Mimi Touré ban yëg-yëg nga ci am. waaw man mm, gis naa euh, information boobu depuis dem muy véhiculé yoo xam ne buñ la ko joxee dañ laa sant nga liggéey muy nga def politique ku mel ne soxna am ne taal gis nañ ko euh, conseil économique social et environnemental bi ñu ko ko joxee ba léegi de man wax dëgg yàlla euh, mënuma la wax ne la lii xañ na peut-être mi ngi koy defal président ci département bi mu ci région bi mu nekk muy Diourbel bañ na ko ba non non non bañ na ko ba. Euh, récemment sax gis nañ ne léegi dakaar lay voté ji kooku kon xam nga mun nañu wax ne kon ay activité politique naa ci vraiment te ku ne gis na ne tamit soxna Mimi Touré li mu daj ci campagne yi vraiment fu président jëm ma nga fa mérito na ko daal wax dëgg yàlla mérito na ko pour loolu moom ànd naa ci. ñu gis ne que local yaa ngi ñëw ndax mën nañ xam ba xam Modou Ndiaye euh, am na yéen a nekk conseil départemental bi wala. élection locale yi moom euh, mu ngi ñëw comme nag dañ cee am suñu kilifa gu ñuy àndal ci politique ñi ngi koy déglu ñi ngi koy déglu am nañ ambition nag euh, waaw bu ñu sañoon tey jii nekk conseiller comme ñëpp ci conseil départemental bi parce que comme commune bi moom gis nañ ni muy doxee sëriñ si en général ñoo ko yoral seen bopp mais comme conseil départemental. ah merci beaucoup ci kàddu yi am na solo trop Mourides Info ñu ngi lay jaajëfal sa kàddu yu tàggatoo. jërëjëf euh, xanaa di sant bu baax rek ci teewaay bi nga xam ni teew ngeen ko fii tey ci émission bi nga xam ne moom ngeen di wax donc ni yéen a ngi koy def. Eh, di jaajëfal tamit ñi nga xam ne nii ñooy topp site bi di Mourides Info di sant ñi nga xamante ne nii ñoom laa bokkal parti bi yëpp muy APR di remercier aussi sama leader Serigne Bassirou jaajëfal lu bare bare bare bare yow tamit Mouride info mi ngi lay jaajëfal lu baax ndax ci teeru gi ak dalal gi ak yombal gi rek yombul woon mais danga ñu ko accepter ci lépp te amuñu ci benn jafe-jafe ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax encore une fois merci beaucoup jaa ngeen jëf yi ni ngeen koy àndeek Ndeye Thiam Saliou saa su nekk ci seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag mënumaa ñàkk bañ a remercier ki nga xamante ni si mooy DG Serigne Mbacké Dieng mi jàpp ci ginnaaw dëgg neexu te yàqu ci dara barki Serigne Touba buñ toogee tey ba mën a yor micro c'est di remercier sama ñaari caméraman yi nga xamante ni si ñoo di Boss Tex yàquñu ci dara na ak sama chauffeur bi nga xamante ni si moo di Xaadim Gueye noonu lañ koy ànd ak yéen ci suba incha allah rabbi ci beneen invité jaa ngeen jëf mbokk yi merci beaucoup